jamais su que je croyais que c'était une ak dayo mbir mi ñi ñu tàllal sunuy lantinoor daal di nëbb seeni kanam naam nag fii ci Sacré-Cœur tekk tekkaaral moo fi fës ay gone yu wàcc l'école bég lool naam nag waxtu woowee naqar la mag ñi daal di dund. nit yi leen mën a téye moom bébé nu leen téye noonu moom météo na torop. sa xol tàng nelawuloo su am na xale bu ñu wane mu loof. Sénégal nag balaa ñoo jóg ci trop tard. ay xale moom nga jël leen def leen si ay maternité yoo xam ne nga nekk si koñ te kenn yëgul. ñuy gis ay image yi nga xamante ni nag neexul ñu bari ci nekkin yooyu le gone. xalaatoon naa ni bébé yi mënul nekk fii du crèche du hôpital du dara kër la nga mën fi tooy ay soixante bébé. xamoon naa ne nii lay mujj. ñu ci war a joxoñ baaraamu tuuma nag gannaaw njiit yi moo di woy jur yi. les parents. waajur yi am nañu ci pàcc bu am solo waaye nag ñoom ci seen bopp léeg-léeg duñu xam ana naka lañ mën a toppatoowee xale bi mu mel ni sax ay miin daan doole ñoom ñooy dal di wan lu lor waaye du doon lu ñu bëgg su ko defee nag ñu ñëw dal di koy dénk yooyu la xale. dugg ak génn ci boobu boobule kër ñëpp nag ñoo ci doon teg seen i gët laaj bi di samp moo di lu tax euh, demuñu ci ñi nga xamante ni nag ñoom la seen xel euh, daal di màcc ci li ni mel. je connais bien Ndella je connais son père mais la aussi et une est une personne à part. c'est que ñun ñoo dëkk moom nag. bu yàgg ba tey waaye amuñu boobu afinité parce que moom xamuñu. ay na man sax xam naa ko parce que ni mu siwee. ba ñu doon bind suñu reportage nag Ndella Madior moo ngi woon ci loxo loxoy yoon ngir mu andi ci ay leeral boobu la affaire nag mu nar a wëy ñu koy waxtaane fu nekk ca waxtu woowee nag Sacré Cœur fi nga xamante ni nag pouponnière bi fa la nekk moo ngi woy di mel ni mu meloon naam nag ñëpp a ngi xaarandi. ñu daal di andi ay leeral ci bile mbir. non non non peut-être du nekk loo xam ne danañ ko danañ ko murmurer.